que man naturellement dama optimiste dama ne bu Sénégal day joué rek Sénégal day gagné te d' autant plus que euh, malentendants yi ba ñuy démarrer kenn mise wala si ñoom kenn amuloon yaakaar ni mën nañu gagné. Mm-hmm. ñu dem ba àgg demi-finale ñu gagné leen par tir au but mu nekk loo xam ne xam nga fan lay fan la fan la sama yaram fan la dawee. Mm-hmm. Euh, bu ñu bu ñu dugalee but ba daw. Mm-hmm. di di feete. ni ñuy yuuxoo. ndeysaan xam nga loolu euh, boo ko fekkee wala nga digg son bi sa yaram dana daw xam nga un Sadio Mané wala keneen ak keneen ñooñu bu ñu bu ñu marqué but ni ñuy jubilé ak ni ñuy li ñuy wax ñoom noonu la ñuy def. moo tax euh, euh, damay leen di féliciter di encourager Fomba qui a fait du karaté leur entraîneur. Mm-hmm. il était au Duc avec nous. mu nekk loo xam ne war nañ leen jàppale. Mm-hmm. te match tey bi. am naa si yaakaar am naa si yaakaar mooy euh, égyptiens yi euh, gagné nañu leen deux fois. Mhm. ñoom léegi fi mu nekk ni pour la médaille de bronze ils feront tout pour ne pas perdre parce que nit lañu ay nit lañu. dafa am loo xam ne da nga naan euh, duñ ñu gagné parce que Sénégal bu ñu gagné rek ay foofu nag bu doon dama gis Fomba wala ma gis joueur dama leen di wax ni oublier les matchs du Sénégal les victoires du Sénégal devant da ngeen koy fàtte ngeen jouer. faites-vous plaisir et ils vont se faire plaisir. ñu bañ a am pression. voilà du ñu am pression. gis nga pression baaxul ci dara. dëgg la looy def ci àddina ànd ak pression rek da ngay nërmeelu moo tax euh, même ambassadeur bi noonu mu demee foofu sax di wax ak ñoom yooyu yëpp ca départ ba la woon. warul nekk ñu dem bay wax dem demi-finale. wala yooyu ngeen ñëw naan leen wéy di leen kii nii. Mm-hmm. mais tu la pression. mais engouement bi tamit est que nekkul. si si si si. à la dernière minute non je veux dire à la dernière minute que sénégalais yëpp affilié wu équipe bi loolu est-ce que. xam nga Sénégal lu muy bañ injustice parce que ñëpp dañu constaté ni ñii kenn toppatoowu leen. Mhm. avant ñuy dem. Mhm. Mhm. mais le le véritable problème du loolu de. ce n'est pas parce que bëgguñu leen toppatoo wala toppatoowuñu leen xam nga problème lan la la CAF ne n'organise pas wala la FIFA n'organise pas. cette coupe du monde. beneen organisme moo ko organise moo ko ñoo ko ñoo ko mm-hmm. bu doon CAF moo ko doon organiser wala FIFA fédération sénégalaise de football daf leen di jël en charge. waaw est-ce que est-ce que comprendre nga. ay oui oui effectivement. mais nit ñi information boo ko amul nag da indi genre frustration naan toppatoo wuñu leen. Mm-hmm. Mm-hmm. effectivement toppatoo wuñu leen nag parce que les billets d'avion les équipements yooyu yëpp soo xoolee ni ñuy entraîner soo xoolee ni ñuy jouer mais yooyu yëpp. des na des na lu non dafa des lu bëri. mais nag gis nga Sénégal xam lu ñu mën. Mhm. nga pare gagné ñëpp ñëw mais tant jaa ngi investir nii muy dans à tous les niveaux nag. Mm. mais est-ce